mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame bay nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen seen i greffage bu

clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di ngeen fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak Kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw Serigne Fass rek ci yow la kon nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si sa njariñ. My baby got me for life. saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa père Bécaye Mbaye ma ñépp jaar gauche mu jaar droite coowal CNG Bécaye remplacé Aline Sarr mboolem ku ñu ci laaj ku bokk ci axlu làmb la ngay ñaan moo ñu dem fédération maintenant père Bécaye Mbaye lañu fi laaj xalaatam mu ne fédération soxla wunu ko ci CNG lañ bëgg continuer bu doon man ak man maay tànn du ma tànn mukk fédération CNG laay tànn ñu jëlaat keneen teg ko ca bopp CNG ba mu doxal làmb ji fi mu toll ni fédération mënu koo solutionné nanu jéem a continuer ci CNG bii ñu lépp luy jàngarooy làmb ji ñu jéem koo faj man d'accorduma tey d'accorduma ëllëg ñuy jël làmb ji di ko def fédération CNG laa bëgg CNG laa choisir ci la ñu ko laaj ana kan nga jàpp ne moo war a mën a remplacer président Alioune Sarr la mu xamle foofu mooy a doxal làmb a jiite CNG nekk ancien nga mën a jiite CNG làmb ji ñu ci bokk ñu ko xam lool bu mbër yi jàllee manager yaa ngi fi promoteur yaa ngi fi a yàq làmb ab lobby bëgg a taxaw temm ngir jëlee fi président Alioune Sarr indi fi ñeneen formé ay lobby ngir imposer ñu ay nit man Bécaye Mbaye maa ne lobby yooyu day yàq lamb ji rek waaye jëmewu ko fenn nga xam fa mu jëmee la Lion de Guédiawaye Balla Gaye 2 mooy baabooy moom triple les baabooy bu Pikine moo ko yor moo koy entraîné ngir mu retrouver forme bu baax Balla Gaye la mbaroo di dafa bëgg saa yu Balla Gaye 2 ci lamb ji ñu gis forme yi xam ne kii am na koy entraîné loolee moo waral muy tëjoog moom moo nekk coach sam la mu lamb dafa xëy laaj ko ay adversaire am l'espoir de Rock Énergie ana ñooy say adversaire mu ne Mamaya Brise de Mer 2 ak Tapha yi la ñetti mbër samay naataangoo lañ samay morom lanu kuñ ma ci jox danaa la juumloo danaa la bëreloo danaa la daan bu ñu jàllee ci écurie jàmm ji bu kër Mbay Fall dañ leen di fekk seen bilan 2019 2020 ñu daan 6 victoire 3 défaite bi lee écurie 9 combats la am ci saison bi waaye foofee seen numéro moo daan tukkal bu bàyyi si xel coodoole moo daan caatu Lamine Gueye bu tefes gi Ibou bu kër Mbay Fall moo daan soq 2 bu asalim géejawaay alma deuxième combat dafa daan booy bu sàpp caatu bambara dafa daan lat joor bu jimboori seen trois defet yéen ak alizé bu xaar mbay moo daan amul frein guy gi bu moor fadam moo daan saamaan doomu tëngéej bu kaay baax moo daan saakaaba bu dee seen coach ba ibrahima jonn la mu xam ne mooy sunu bilan bi ba ëllëg incha allah. My baby got me. mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di woyo ci turu Collé ma madame Mbaye nekke ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal lu leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely plaquage greffage wala ngeen bëgg seen i greffage ba bëgg ay steam pour defar seen i greffage bu ngeen yegsee ci fas yéen bàyyi ko lelaay seen xol set bu dee yéen yor seen greffage bopp bëgg koy steam daw si leen gaaw da koy defal ci njëg yu xéewal te bu ko jàppee ba bàyyi ko ngeen jàpp lu bees la bu dee da ngeen a bëgg greffage nag xeet bu mën di lekk greffage red frisé ba ci semi ondulé original bi ngeen fii fekk ngeen bëgg ay accessoire ngir defar seen i peñe yaa ngi fii accessoire wàllu clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di fa fekk ay trois di fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen i bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a conseiller li gën ci yéen elle est disponible 24 heures sur 24 ngeen mën ko woo ci 77 ak Kolle laay madame Mbaye ku ku fi nax greffage rek ci yow la kon nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si sa njariñ.